waaye am na ci téeméer lu tegal loo xamee ni liñ qui porté disparu kenn ci lan la ne euh, la ñu nekk muy loo xamee ni euh, yéeme li ci li ci doy sénégalais maliens gambiens africains de l'ouest ñoo ci nekk mu immigration irrégulière depuis fort longtemps yamul ci ay sénégalais dem na ba ci yeneen i gox yi nga xamee ni moom lañu seq gis nañu fi ay Gambien ci ay jamono euh, ay Malien ci ay jamono euh, ba léegi nii ñu lay wax ay Bissau Guinéen ak ñeneen yoo xamee ni point de départ yi man sama problème mooy la ñu dugaloon ci ay milliards ci ay Frontex ñu taxawal ko ne ni dañuy xeex lépp lu jëm ci wàllu wàllug immigration irrégulière ànd ceeg Europe la ñu dugal ci koppar ngir fexe ba Euh, gëna doté suñu marine nationale suñu euh, armée de l'air ci ay moyens pour mëna surveiller nos côtes pour mëna xol fan la gal di joggé wala euh, yan gal ñom ñoy dugg ci biir réew mi loole yëpp war nañu am taxaw sétlu pour xam ndax départ fi bi lañ déparé romb dem ba Mauritanie té kenn gisu ça veut dire donc amna na bo boo amna ci suñu système de sécurité té ci jamono ji ñu toll ci siècle bi ñu toll ak jafé jafé yi nga xamee amna au plan mondial sur le plan sécuritaire mais rawatina ci plan bi ñu ni nii walla ci région bi ñu nekk sur le plan sécuritaire jafé jafé yi ci am réew yu nek di jéem set nu ñuy def ba dëgëral seen walu karangé bu ñun dañuy mëna a ay gal yu joggé ci suñuy wax wala yu joggé ci suñuy tefes plutôt pour guen bay euh, Mauritanie wala di Maroc c'est parce que sur le plan sécuritaire qu'on Amna ay failles nos frontières finalement sont poreuses poreuses tes frontières c'est pas seulement les frontières terrestres mais les frontières maritimes te li da kay c'est aux autorités de voir nan les ñuy situation très rapidement pour au moins beau mënu la jox liggéey ak xey ñi nga xamé ni ñom ñoy émigré clandestin wala émigrer ñi bëgg génn réew mi mais au moins nga mëna sécuriser ses frontières ba génn bi du yombé ni muy yombé parce que dañuy accélérer trop les les li ñu gis ci chiffres yi euh, bateau yi dem tamit euh, mais c'est à se demander mais xanaa xamuñu fan lañuy déparer wala fañuy déparer déparé romb suñu géej suñu wax yëpp ñu ne ñaata kilomètre de côte la ñu am 7000 xaw ma su ma juumul de côte lan moo tere ñu mën a au moins suñu littoral bi ci côte bi ñuy wax de euh, Ziguinchor à Saint-Louis mais ñu mën a am benn surveillance bu gën a accrue parce que foofu ay frontière la na nit di mënee génn dugg ci gaal génn pour romb Sénégal pour mën a dem Mauritanie ba Maroc ba feneen mais noonu la keneen mënee dugg kon ça veut dire que am na ñuy dugg ci suñuy frontière jaaree ko ci géej gi am na ñuy génn ci suñuy frontière jaaree ko ci géej gi donc la surveillance de nos frontières aujourd'hui donc pose problème te loolu tamit il faut que gouvernement yi mën ci am taxaw seetlu mën a rectifier très rapidement. gis biraay mooy buñ ne euh, mbëkk mi peut-être ñenn ñi dañuy wax que ni amul.